loolu nag du dëgg du yoon leneen li nga xamante ne moom wax na ko eh, nee na euh, fan yi nga xamante ni fan yi di ñëw euh, waa PDS dinañu teg euh, dinañu def benn réunion réunion boo xamante ne dinañu jéem a situer responsabilité yi ba xam kenn ku nekk li nga xamante ne moom nga ci moom mooy sa mérite ñu jox la ko parce que famille PDS dafa mel ne ñoom kenn respecté wu lañ ci ba et dafa mel ne dafa am ñoo xamante ne dañuy jël di di di xaatim ay ay signature te kenn santu leen ko bu ñu jógee ci PDS dañuy wax ci AFP. ñoom nag mhm. ñu ngi def seen bilan. waaw waa AFP euh, ñoom euh, ñoom wax Moustapha Niasse euh, ndax dañuy génn ci coalition benn Bokk Yaakaar waaw wala déet ñoom loolu la ñu wax. Euh, ñoom nag euh, suba dañu ñu tase ngir xool euh, nan la ñuy def ba nga xamante ne nan la ñuy def. pour ndax dañuy rester bi benn bokk yaakaar waaw wala question bi sax xam naa ne posé ko peut-être bon yabaate la mais bon ndaxte AFP ñoom nee nañu di waaw nee nañuy remercier président Macky Sall seen compagnon compagnonnage bu ñu ànd ak Macky Sall 12 ans ba léegi nee nañ. Euh, bu ñu remercier Macky Sall euh, ba pare euh, li nga xamante ne nouveau gouvernement bi def nañ ko moom mooy rendre ko reddition des comptes ñoom ñu ngi ci dañuy il faut que ñu gars yi rendre des comptes si seen communiqué bi ba léegi ñoom ñu ne lu ñu bëgg rek moom mooy jubal li nga xamante ne moom mooy ay fonction de fonction de la fonctionnement normal de la république république dox li nga xamante ne noonu la war a doxee ba léegi tamit ñu ne coalition benn Bokk dafa génn si élection yi nii daanaka yàqu ndaxte euh, coow yi nga xamante ni dégg nañ ko diggante nga xamante ne moom Macky Sall ak euh, ak président Macky Sall loolu yëpp dinañu ko euh, dinañu ko expliquer bu fekkee tase nañu def seen réunion politique ñoom ñu wax ne Moustapha Niass ginnaaw bu mu nekkee dix ans ci assemblée nationale loolu lépp nañ ko càmbar xool tamit ñi nga xamante ni. Mhm. ñoom ñoom ñooy toog ci fi nga xamante ni moom mooy parti bi ñoom ñoo war a wuutu ñii di kii di Moustapha Niass loolu tamit. ordre euh, euh, comment comment ça s'appelle question la ci ordre du jour. loolu am na solo ñu wax ci FAO euh, ñoom nag ñu ngi jàppale jigéen ña nekk ca Fatick. waaw ñu ngi jàppale jigéen ñi nekk si Fatick jigéen ñi nekk si Fatick benn dëkk bu tudd Nemaba village bi noonu la la tudd waa FAO ak Nations Unies ñoo ñoo si lëkkaloo ngir jàpp jàppale jigéen ñi nga xam ñoo nekk si village boobu ak tamit jigéen ñi nekk si village yu yëpp autour ay Toubacouta Korea boo ji village yooyu yëpp ngir jàppale leen. ci nu nga xamante ne noonu lañ leen di euh, euh, ci ay financement euh, ci jigéen ñi nga xamante ne si wàllu UTRE la ñuy liggéey moom man UTRE mënu ma ko wax si waaye mënu ma ko wax si olof Kajoor si sa fekkee mën nga ma jàppale si UTRE. na lañ koy wax yoxos merci. fii ba suba doon moo woon wax. <laughs> yoxos voilà yoo xamante ni ñoom ci loolu la ñuy liggéey donc waa FAO at at Union européenne Nations Unies ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo regroupé wu ngir euh, jàppale leen jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite euh, GIE yi fa nekk village boobu ak yeneen village wu environ mhm. village yi nga xam ñoom ñoo wër région bi yëpp euh, ñoom ci loolu la ñuy liggéey ñoom nag lu ñu bëgg nee nañu ñu utal leen li nga xamante ne moom mooy chemin irrigation pour euh, ay yoo xamante ne ay euh, ay fleuve enfin je sais pas ay euh, ay marais yoo xamante ne dañ koy mën a nga ci di dem euh, di euh, roose si li nga xamante ne moom mooy seen euh, fi ñuy fi ñuy mm-hmm. puiser xorom mm-hmm. bu weesoo loolu tamit ñoom li ñu liggéey si ay nee na dañuy liggéey si ay tonnes yu tonnes lu mat lu mat seize mille tonnes affaire pêche bu ñu xaymaa loolu lépp ci loolu liggéey ci dex yi fa nekk ci loolu la ñuy liggéey loolu tamit fokk ñu jàppale leen ci mm-hmm. ci discours yi ñu yëkkati nee nañ lim bi mu ngi toll ci quinze mille femmes ñoom ñoo bokk ci projet boobu ñu war leen a financer ci montant bu nga xamante ne un merci beaucoup Pa Malick ñu jaajëfal la bu baax a baax damay rebondir rapidement par rapport ak euh, info bu mujj bi FAO li mu def euh, dañ koy saluer dans mm-hmm. la mesure où dañuy jàppale euh, ces femmes là à se développer dans leur domaine de compétence c'est toujours bien donc voilà loolu loolu lu baax la initiative bu rafet la dañ mm-hmm. koy dañ koy saluer bu baax a baax léegi mm-hmm. rapidement AFP ñoom. ku fa des AFP moom wax ji yëpp loolu la de docteur Malick Diop. tojul ah, fenn ak ngi fa Zator Mbaye. Ah. Zator Mbaye fu mu toj tamit. c'est-à-dire que léegi man man sama question nekkul loolu. 12 ans de compagnonnage ak euh, Benno Bokk Yaakaar waa AFP ñoom tey bu ñu dajaloo lu ñuy wax ak. non mais pour pour man meilleur deal bi moom moo nekk ñoom. ñu est-ce ñu waree génn Benno Bokk Yaakaar. non loolu comme c'est comme c'est valable pour euh, pour euh, ñoom Khalifa Sall quoi. taxaw Sénégal parce que on pose la question Khalifa Sall est-ce que waroon na lëkkaloo euh, bu yàgg ko ñu dem ay élections. mais quoi qu'il soit pour man en fait ñoom wax AFP. Mhm. bon dina difficile trop parce que aujourd'hui patrimoine la yàgg nañu dem élection am score bu baax et tout. Mhm. su fekkee dañu war a tamit seey fi nga xamante ne seey ci Macky Sall jógee fa. donc jugee foofu noonu dem seey ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa parti socialiste dafay parce que c'est la même famille politique bon pour man c'est envisageable mais bu fekkee amoo benn leadership bi euh, sur dans l'espace politique bon c'est dur nga exister parce que am na ñoo xamante ne mais mais problème euh, xam nga politique moom mooy am na ñoo xamante ne du ñu reconnaître seen tort par exemple du ñu reconnaître par exemple man lii laay peser doo reconnaître xam nga ku nekk xam nga lu ngay peser mais doo ko reconnaître da ngay xool biir bon ñi nga xamante ne ay mën nañu wax ay tête de la ñoo xamante ne am nañ benn envergure que soit mu nekk politiquement wala sur le présence politico-médiatique bon c'est pas euh, c'est pas amul yenn yenn yenn envergure yi ñi nga xamante ne ñoo fa nekk Aliou Sarr dem Aliou Aliou Alioune Sarr moo nekkoon ministre du tourisme si Macky Sall moom de jugee na fa dem na créé na benn kii boppam xam nga ñu fa nekk bon man xawma sax ñen ñoo fa ñen ñoo fa nekk actuellement euh, non bo mais mais soo jëlee Malick boo suba ma boo jëlee Malick Diop bon peut-être peut-être Malick Gakou delluwaat foofu Malick Gakou waaw Malick delluwaat foofu peut-être je sais mais mën nañu def benn conglomérat bu mag boo xamante ne dañuy réunir parti parti yi nga xam ne ay parti de fay parti euh, PS ñi nga xamante ni si PS lañ jugee daal. ñoom ñëpp ñu fexe euh, je sais pas regroupé mais mais boo waxee mais boo waxee politique si affaire boobu fii Sénégal loolu c'est une question tabou quoi gars yi d'habitude élection ñëwul du bëgg a def loolu mais pour man nag après euh, ñu ngi dëgmal ay élection législative prochainement mais fii nga war a commencer liggéey lëkkaloo ma bàyyi ba élection yi ñëw ngay doog a def euh, alliance pour man loolu du sotti fii ngay def lëkkaloo mais comme quoi quoi que parti à chaque fois dafay am problème leadership. Mm-hmm. et puis moom lu ñu bëgg daal moom man pour man meilleur scénario bi mooy AFP dem rejoindre ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom Khalifa Sall quoi. Hmm. loolu ñenn ñi ñu ci des rek kay ngay wax ndax APR ñu ci amoon ambition yëpp. Euh, AFP bokk ñu ci amoon ambition yëpp dem nañ seen yoon. Euh, Moustapha Niass moo fa nekkoon te yaa je pense war na mat cinq ans bi muy def conférence de presse man jour boobu sax man maa ko couvrir woon il avait appelé à ce que les jeunes prennent le relais. Mhm. te te te bàyyiwuloo yow c'est-à-dire que quand tu appelles les gens yow retire-toi mais yow ba léegi yow yaa jiitu foofu ku wax nga rëq ndigam. Ah, donc jour la bokk quoi. voilà il est pas trop euh, euh, <laughs> c'est pas trop tôt parce que il fallait le faire depuis longtemps. maintenant suñ ko defee après parti day am locomotive ah. qui va le qui qui qui va constituer cette locomotive là. xaw ma ndax moom lay doon parce que moom xanaa war na tal lu dul nekkaat fii ci kepparu politique bii di di di di yëg ak a wàcc. donc Moustapha Niass moom Moustapha Niass kii Moustapha Niass waa Niass ngay wax. waaw non moom bon. ah voilà man maintenant ah, qui est-ce qui va. Sénégal euh, problème dooleem dañu c'est-à-dire les chefs de parti dañuy yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg di jiite parti bi te duñu préparé. li nga xamante ni moo di relève bi et ça aussi c'est important war nañ war nañ ci bàyyi xel aussi mm, mm, AFP nu mu toll man wala Kajoor wala kenn mën laa wax kan moo war mën ah, amatul kenn nag justement yow ñi fa nekkoon yëpp dem nañ yooyu yëpp en le fait que ñu ne nga xam ne il ne pèse rien du tout le fait que ñu sey moom moom moo leen moo leen ramollir quoi euh, c'est le même cas pour parti socialiste c'est le même cas pour parti de gauche yi nga xamante ne mm. dañaa allié woon ak Macky Sall ba léegi voilà amul loolu moo tax loolu moo tax même si c'est dur nga demal même si c'est dur nga demal sa bopp moom moo gën ko ngay say si biir coalition quoi parce que coalition moom après élection yi su jeexee mën nga retiré dem taxaw ne ngir gën a for formé wu waat alors la mais Kajoor nee na ko soppi def ko daay hmm, hmm. alors léegi-léegi dañuy dikkaat ci plateau bi ñu bàyyi leen ngeen seetaan benn clip et juste après ñu dikkaat ci plateau